Dame Mbodj ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay leen sant leen gërëm. yow yaay secrétaire général national bu CUSEMS authentique tey jii li gën a fës ci wàllu njàng mi ak njàngale mi bokk na ci euh, vacances muy xeetu noppalu yi nga xamante ne dañ leen ko xañ euh, ci diirub euh, feetub nawel yi loolu ban jàngat nga ci am. waaw loolu day wax dëgg yàlla man bi ma gisee décret bi ñëw signé ko moom président de la république. ndax loolu nag am na ci sañ-sañ ci signé décret parce que loolu la ko constitution bi may. Euh, moom mooy wax kañ la école bi di door ak kañ lay jeex ak ban waxtu la ñuy noppalu ak ban waxtu lañ dul noppalu ban waxtu la ñuy def composition yi ak ban waxtu la ñuy def examen yi loolu lépp ci loxo chef de l'état la nekk loolu constitution moo ko jox pour mu leer waaye nag bu ko constitution joxee du tax muy décider décision muy jël ay décision yoo xam ni amul benn jeexital ci ni njàng mi di doxee lii mu jël nag amul benn jeexital bu mu am daa daa jël rek sañ-sañam doxal ko daa di dogal waaye lim dogal ku xam nan la jàng di doxe ak lan mooy jàng di nga xam ne teguwul ci xam-xam teguwul ci xam ndaxte jàng ak jàngale dafa laaj dal jàng ak jàngale dafa ja dafa laaj nekk nekk maanaam nga nekk fi maanaam même bu sa jëmm nekkee fii yow sa bopp sa xel ak say xalaat nekk fi comme ça liñ lay jàngal mu mën a dugg sa bopp waaye xale bu ndaw jóge seen kër gis ne feet ga ma ngay door parce que ku ne xam na ni diggante ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru décembre ak fanweeri fan ak benn ci weeru décembre kooku at mu nekk Sénégal dañ koy dañ koy feetu jullit yi comme musulman yi comme chrétien yi ñoom ñëpp ñooy ànd di ko feetu ndaxte loolu lañ xam même buñ ko waroon a soppi daa am waajal gu mu laaj waaye waajaloo ko bett nit ñi nga xam ne sax am na ñoo xam ne waajaloon nañ feet gi ba am na sax wutoon na seen i ndimo denc yéen war a sol yooyu yëpp am ci nga xëy xëy ni leen du ngeen ko def bàyyi ba mu des semaine rek nga daal di jënd sa décret daal ni ren loolu du am man jàpp naa ne loolu amul benn njariñ jël nga nag sa droit parce que loolu droit moo la ko jox waaye même bu la ko droit joxee njariñ la amul donc man li ma jàpp mooy xale yi dañoo nar a nekk ci classe seen xel di nekk ca ginaar yi nay togg ca kër ga. Hmm. loolu moo nar am mais xale yi bu ñu leen bëggee imposer ñu toog ci classe ba noonu seen xel nekk fa loolu mënut a ne ku xam feet nga xam ne yaa ngay yàkkamti ñibbiwaat seen kër concentration ba mu laaj pour maître bi li muy expliquer nga man koo comprendre kooku jàpp naa ne xam war ngaa xam ne loolu mënut a nekk te euh, lii wax dëgg yàlla li koy wane rek mooy ñoom dañuy dañuy def loo xam dañ ci waxtaan ak nit ñi nañu ak ñu euh, waxtaan yi ñu war a am am ci loolu lañ dul def dañuy toog ba ci àgg rek daan man am naa ci sañ-sañ rek daal di jël seen décision dem taxawi na li lii nu jël man dama jàpp ne juróom-ñaari fan la yoo xam ni dañ koo nar ci classe yi Euh, xale yi toog ak ka ci classe yi mais ku na nat beneen semaine bu amul feet di nga gis ne semaine bii am feet lañ ca lañ ca for ñoom xale yi ca xam-xam dana néew par rapport ak semaine yi nga xam ne dara xewul kon nag semaine u feet la man su doon man la duma ko doxale nii. Mm. waaye na comme ñoom dañuy def di jaay doole di xool ni nga xam loi bi may na leen ko rek ñu def ko. ah man jàpp ni parce que ña koy def looñu ci ëpp sax ministère éducation lañ nekk te ministère éducation moom waxuma ko woon ci français waaye kenn ko jox moom wax dëgg yàlla ku xam na ne des naa man ba noppi ña ko ñu ci ëpp ci ñoom dem nañ retraite ñoo amatuñ lu ñuy prouver lu dul naxante rek ba am lu nu def seen poste kon nag man jàpp naa ni wax dëgg yàlla décision bi moom man gisuma ci sama bopp. mais bu ñu xoolee li ñu am ci retard ci mbas mi waral ko euh, yan pexe wala boog solution nga mën a indi tey ngir boobu nga xamante ne ñàkk nañ ko. waaw man dama jàpp ni comme ni ma ko waxee bu fekkee semaine bi da koo jël te euh, ñoom pare wuñ pour nekk ci classe yi ba seen xel nekk fa parce que ay xale lañ xale lu ko perturbé dafa yomb. Hmm. man jàpp naa ne nekk fa di jàng te jàngoo parce que jàng du question rek ñëw toog. waaw ñëw toog rek euh, wax dëgg yàlla euh, te sa xel nekku fi li lay wax déglu woo ko parce que sa xel nekku fi parce que xel mu fi nekkul jàng amul. jàng bala moo am ñi am xam-xam ci jàng yëpp d'accord nañ ni pour nga jàng da ngay ànd ak dal jàngalekat sax normalement bu bu élève am ñëwee ci classe bi te xelam nekku fi bu xoolee ni li tax xelam nekku fi moom événement la bu dund muy dund même moom individuel la moom xale bi dañ koy libérer mu ñibbi seen kër. bu dee classe bi yëpp la dañ leen di libérer loolu mooy jàngalekat man man bi may na ci classe yi di jàngale loolu laa mës def su ma ñëwee euh, euh, gis ne ak euh, fête gu rëy am na ci dëkk bi. ba xale yi li may jàngale concentré wuñ lu ma leen laaj question sax duñ maa mën a répondre parce que seen xel nekku fi mais dama ko daan wax toujours ba daan ñëw ma ne classe man sama classe bi dama leen di parce que ñoom jànguñu bu ko defee cours boobu ma wut beneen bis boo xam dara xewul ci dëkk bi ma rattrapé ko man ba may jàngale ca Oussouye ca Casamance loolu laa doon def au lycée Aline Sitoé Diatta loolu man loolu laa gëm ne moo gënoon maanaam ñu bàyyi semaine bi mu jàll buñ demee ba semestre bi jeex ñu rattrapé ko doo ko tëj loolu moo gënoon fuuf waaye def semaine boo xam ne dootoo ko rattrapé lañ ca doon wut sax am mooy dañuy perdre une semaine alors que a perdre semaine moo tax ñu ne nan ko jàng kon nag man li ma gëm mooy rattrapé woon ko bu semestre semestre bu trimestre bi jeexee moo gën di imposer nit ñu toog ci classe te seen xel nekkul ci classe man loolu laa gëm. Hmm. fan yi wees tamit ñu ngi ñuy euh, signaler ay cas Covid 19 yi nga xamante ne dugg na ci école yi laal na sax ay jàngalekat bokk na ci Kaffrine Matam ak Bambey moo ne de état bi yëgle woon ni kon dina am disposition bu mucc ay bu muy teg ngir kon euh, aar jàngalekat yi ak ndongo yi sax seen walu bopp ci école yi loolu ban xayma nga ñu ci mën a defal ba xam lépp. am na. waaw loolu moom wax dëgg yàlla boo xoolee li xew ci école yi sax xam ne loolu waxi kasaaw kasaaw la parce que ministre éducation nationale ba mu demee assemblée député man mii booba maa nga fa toog di ko déglu bu ñuy voté budget éducation man damay ñëw toog pour xool lan moo fa xew. Hmm. waaye wax dëgg yàlla lam fa wax moom dama damaa génn ni journaliste yi fa nekkoon lii waxi kasaaw kasaaw la ndaxte bu ne fexe ba feebar bi du law ci biir école yi. mais loolu alors que moom amul benn pexe bu mu teg boobaak léegi ministre bi waxi kese rek lay wax li muy wax noonu dëppoowul ak li am ci école yi ñoom bi école ubbi waatee lañ defoon ca ba ñuy ba ñuy ubbi la vingt cinq juin defaatuñ ko maanaam dajale ñi nga xam ñoo séq école bi euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi ko jiite ñu jox leen ku ci nekk matuwaay yi tax ñu mën a aar xale yi aar jàngal jàngalekat yi ak ña fay liggéeyee nga xam ne dañ doon am ay séddale yi ñu doon séddale ay masque di séddale Euh, jumtuwaay yooyu nga xam ñooy seet seet tàngaayu yaram di séddale ay euh, raxasukaay ba noppi nag ren li ci gën a garaaw mooy bi ni ubbi ñëpp ñëw parce que bële sax ñu doon def examen rek ñoo ñëwoon waaye bii élèves yëpp a ñëw te mat nañ ñeenti million jàngalekat yëpp a ñëw aussi <laughs> mais wax dëgg yàlla te yow tegoo dara amul dara la teg ci école yi école boo dem amuñu masque amuñu dara waala kon kay boo taxawee ni man damay aar jàngalekat yi waxu caaxaan la dafa mel ni virus bi dafa xàmmee jàngalekat yi man loolu mooy sama problème dafa mel ni virus bi dafa xàmmee jàngalekat yi ak élèves yi ak étudiants parce que jàngalekat yi ak étudiants yi ak élèves ñoom ñoom ñu ngi fees jàll ci école yi donc man vraiment je crois que loolu waxu a politicien la rek parce que Mamadou Talla moom wax dëgg yàlla fu ma ci waxee nii dafa ne dama koo contre waaye wax dëgg yàlla ministre la boo xam ni moom njariñam bëriwul ndaxte moom njàng mi eh, moom na nekk ministre rek moom na ne ministre rek moom yoonum nekku ci na baax ak baaxul yoonu nekku ci moom daal na raay di di wëral di raay di wër wëral bëgg na maa jàmm damaa bëgg jàmm ci école yi ak di def discours am boobu nga xam ni dans la langue de bois du dem droit au but di def un discours aérien voilà yooyu daal ci la nekk boobaak léegi mais ñun li nu gëm te nekk ay acteur nga xam ne jàngalekat yi ñoom ñoo ni jox information yi am te ñun dugaluñ ci lenn dul wax rek sunu akulaay taala jàngalekat yi ci école yi nekk dina jox suñuy information ñu leen di jiite nga xam ne man chaque jour su ma toogee siège dama naan leen eh, envoyé leen ma ku ci nekk li nga xam moo moo nekk sa ci ci sa école hmm. li jot nga xam moom la secrétaire jot di ma ko jox moom la sama responsable di jot dama ko jox loolu lépp lu ma ci jël damay gis ni benn matuwaay jëluñu ko kon nag ñun yaakaar yàlla rek lañ mën a def waaye yaakaar gouvernement bi moom mu ci am parce que gouvernement bi tegul dara sunu loxo kon daal ñu xëy di dem ak ñëw ñu ngi dajaloo wax dëgg yàlla euh, gisaguñu benn changement bu ci am ci li nga xam ne moom moo am lool moo tax sax man may comprendre ñi nga xam ne ñoom ñu ngi kaas euh, nekk ay artistes yu nekk ci Sénégal ni ñoom dañ leen a boddi parce que ñoom dañ leen a tere ñu dajaloo ma déglu euh, euh, gouverneur Dakar mu naan noo ñooñu c'est parce que fu ñuy naan naane la ak fu ñuy fecce mais ana naan ak fecc lu mu bokk ak euh, ak ak ak mbas mi mbas mi kay dañ bu nit ñi dajaloo dajaloo bu bari saal yi ñu leen di tere ñoom pour ñu dajaloo fa mais ñu presque kenn pour nga am ci saal bu mën a dajalee téeméeri nit yombul alors que. juróom benn junni jëm juróom ñaari junni ñi ngi dajaloo ci benn école bu nekk fii ci banlieue bu muy lycée Limamou Laye lycée yeneen yu Dakar yi kenn ku benn boo ci jël ma ngay dajale ñeenti junni wala ñeenti junni yi teg lycée lycée yu mat lu mat fukki lycée ci dakaar ñi ngi am lima la lima waa léegi waxuma la région yi CM bi gën a ndaw CM bi gën a ndaw dina jege la muy am ci ndongo dina jege junniy ndongol mooy CM yu ndaw yi. Hmm. CM yu ndaw yi ñooy am benn junni ndongo junni. wala yow ban saal moo fi am junni ci Sénégal ñu dajale xale yi ci saal yi ab saal bu daan def ñeen fukki nit ak juróom wala juróom fukk saal ba di def léegi téeméeri ndaw ak ñeen fukk ak téeméeri ndaw ak fanweer nii loolu kay dajaloo gënu koo rëy ñu ni loolu loolu garaawul loolu moom garaawul nañ bàyyi rek ñu dajaloo. Hmm. waaye ñee ñoom buñ dajaloo école yi nañ dajaloo waaye bu stade yi dajaloo Euh, fii ban championnat moo fi mën a dajale loolu lii Sëriñ Maamu Laay di dajale yow match ku yàgg a dem championnat Sénégal xam ni. Hmm. Euh, bu match football amee mënta dajale lu mat euh, lu mat lu mat ñetti téeméer lu mat ñetti junni alors que lii Sëriñ Maamu Laay kese juróom be juróom-ñaari junni yi tuutee ci manqué juróom-ñaari junni yi tuutee ci manqué ci ndongo léegi yow nga ni ban stade moo fi am loolu Sénégal fii ci championnat championnat bi kenn da koo seetaanati. Hmm. nga léegi championnat bi na arrêté. parce que damay dajal damay bañ nit ñi dajaloo amul alors que match bi gën a rëy ci championnat Sénégal mën ta dajale euh, juróomi junni parce que kenn dematul ci stade bi donc il faut que les gens soient sérieux donc il faut que ñoo xam ne décision yi ñu jël dafa war a am dafa am war a am euh, xel mu ko nangu xel nanguwul ñi ëpp doole nga ne leen dajaloo leen ñi gën a néew doole ci lim nga ne leen bu leen dajaloo loolu du décision dara décision tappale la Hmm. gis nañu tamit fan yi xeetu perturbation rawatina Guédiawaye Pikine Rufisque bëri na ci ay euh, syndicalistes seen i naataango yi nga xamante ne ñoo nga yee sàkku ñu daal di leen fay seen ndàmpaay correction baccalauréat ak BFM bi wees ba xam lu ni mel tamit yéen a ngi koy jànkonteel ñàkk fay yooyu leen ndàmpaay. waaw loolu moom wax dëgg yàlla ku ne xam na ni. Euh, gouvernement ak Sénégal euh, gouvernement Sénégal ak jàngalekat yi 2007 ba léegi danoo signé ab accord ñu koy wax ak dégo hmm. boo xam ne dañ koo xaatim mu leer nañ li mu wax lan la dani fanweeri fan ci weeru novembre fu mu gouvernement bi jël na engagement ni dana fay lépp loo xam ne moo doon ndàmpaay yi doon natte gone yi ci baccalauréat bi ak BFM bi lépp luy ndàmpaay loo xam ne jàngalekat bi euh, ameel nañ ko ko daan ko ko fay au plus tard mooy bala ñoo yegg ci trente fanweeri fan ci weeru novembre lii kay lu leer naa ñu la léegi actuellement kañ la ñu romboon date boobu te jàngalekat yi ñu ngi xaar seen xaalis jotuñ ci te ñuy rappelé ne loolu ab bor la xamul tax mu nekk bor. Hmm. ab jàngalekat la boo xam day ñëw to nekk ca euh, Thiès wala mu ne ca Matam ñu jëlee ko fa yóbbu ko Ziguinchor wala ñu yóbbu ko wala ñu yóbbu ko euh, Tamba. ne ko léegi yow demal corriger ji fa soo fa corriger bac bi yow jëlal say matuwaay nga dem léegi loolu ngay passé yëpp daan na am na na ci compal jox la avance mais am na ñoo sax duñ jot duñ jot seen avance bala ñoo dem léegi nag nii la leew boo demee loo fa fare boo paree ba natt xale yi ba pare boo ñibbisee daan la ko fay au plus tard trente novembre kañ leen toon xale yi ñu nat toon xale yi ña nga jeexaloon ca septembre bi septembre di door la la jeexoon. Mm-hmm. waaw bi septembre avant ñuy def mi septembre jeex na jàngalekat yi ñibbisi nañ. Mhm. waaw léegi boobu ba léegi. ñi jël waruñoo jël seen i matuwaay pour fay ñi ñi seen xaalis léegi jàngalekat bi dem dëkk ci ay yenn jàngalekat yi yu bëri bu ñu demee léegi ci région yi ay auberge la ñuy loué parce que amuñu fuñ dal dañuy dem loué benn auberge dafa fanaan boo fa dee fanaan di corriger boo xëyee dem ci école ba ngay corriger waat di def loolu ba mat fukki fan ak ñett ngay añ di di ndékki sonn coono ba nga booleeg lépp ñu war la koo fay ñu toog léegi boobaak léegi di tendeefal jàngalekat yi am nañ droit génn fippu ne nan nu fay sunu xaalis ndaxte ñu ngi tappale ak di yokk seen i euh, kuréel yi leen intéressé parce que conseil économique social environnemental bii nga xam ne sénégalais yëpp nee nañ dañ ko war a nërmeel ndax amul benn njariñ amul benn jeexital pour développement réew mi ña nga nee dem yokkal leen ba nu ba nu doyal ndaxte nee nañ danoo yar xaalis bu ñuy yokk waa léegi olof yi dañ ni ku sa jotul doo booti gàmb bu dee doyalul kon noo yokkal ki nga xam ne amee luñ ko dara nan fay kin ameel parce que ñun laajunu loo xam ni dan dan koy laaj te moomuñu ko ñun loolu moom la ñuy laaj léegi nag munoo ameel nit fayoo ko borom ba noppi de maye loolu lañ def danoo ameel jàngalekat yi seen ay ay ay ay ay ay ay indemnité mooy ay ay ay ay ay xaalis boo xam si ci fi doon natte xale yi la ci examen yi weesu fayin leen ba noppi jël xaalis bi dem di ko may ñoo xam ne amuñ ci benn droit surtout na nga koy jox ñoo xam ni sénégalais boo laaj mën la conseil économique et social dañ koo war a daaneel ndax ci amul benn njëriñ pour réew mi waa léegi lii dina jot jàmm léegi nag sénégalais yi nan àtte ci dëgg ndaxte ñaari nit bu ñuy jàppante. Hmm. kii dóore ngay téye ci loxoom ne ko bàyyil dóore bi doo mais doo fekk que ni dóor nga ni ko muñal ndaxte damaa bëgg ngeen am jàmm muy toog ni yott ñu koy dóor jàngalekat yi loolu lañ nangootul moo tax léegi xam nga lu ñuy def. Hmm. buñ ñu mbëkkee ñu mbëkk leen buñ ñu dóoree ñu fayu am ameel nañ ñu xaalis fayut ñu dañuy toog ca kër yi ni jàngale jiwuñ kuy atte ateel ci dëgg ndaxte dañ ne nag jàmm day lalu ci dëgg bu laluwul ci dëgg jàmm du mën a am. yow yaay secrétaire général national bu CUSEMS authentique sëñ bi Dame Mbodj ñu ngi lay gërëm bu baax a baax. maa ngi leen di sant leen gërëm bu baax yéen tamit di leen ñaanal yendu jàmm. jërëjëf.